mbokk internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun dalee nag jàmm ci li gën a fës tey ci xibaar yi tolluwaayu mbasum covid 19 bi la koy dooree ak xayma bésu tey bi altine juróom-ñetti fan ci weeru février atum 2021 docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention waaye nekk itam ki nga xam ni moo yor kàddu jëriñ bi gàllo wàllu ku wér gi yaram xamle na ni si ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn test yi nga xam ni moom la ñu jot a amal ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo si am doomu jàngoro ji ni ay jege ñaale way yi la ñu woon ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xam ni ñoo ngi ak doomu jàngoro ji waaye nag kenn xamul fu ñu koo jëlee lu toll si juróom fukk juróom-ñetti way tawat ñoo ngi ci barabu Sowetaas yi ndax li nga xam ni moo di feebar bi da leen a lottal juróom-ñaari doomu aadama mbas mi faat na leen ni ki démb loolu nag yóbbu limuk ñi faatu ci mbas mi ba mu duggee ci réew mi ak léegi ba si juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent doomu aadama ñuy ñaan nag suñu borom daal di leen di yërëm te xaare leen aljana waaye nag lu toll si ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom si ñi nga xam ni yor bi tëraloon na leen war na ñëw bés ni ko tey ñu woyal ak njiital Pastef di Ousmane Sonko moom nag andi na ay leeral ci tuuma yi nga xam ni teg nañu ko ci ndoddam te mu ñeel rek mbirum viol ak menace de mort ci loolu nag mu xamle ni lu ñeel wër gi yaramam moo ko laaj rek ngir muy def ay séance de massage de te loolee nag nee na ndigalu docteur bi nga xam ni moom moo koy faj la mu xamle ni loolee moo ko dugal ca Suite Beauty di institut bu légal ngir rek mu fay defee ay massage am yooyu jiiñ euh, defu ko fa te it nag dafa sax xajul euh, ndax saa bu fay euh, saa bu fa demaan rek ñaari nit la doon woo ngir rek ñu koy maase te masul nekk ci salle bi ak benn nit te it nag masu faa ñëw ak ay gànnaay ba tax rek mu ni li xew lépp ab complot la te complot bi nag Macky Sall di njiitu réew mi moom moo ko lal ba tey rek joxoñ na baaraam jëwriñ bi nga xam ni moo gàlloo wàll ko kaaraange biir réew mi procureur de la république ci moom usmaan Sonko la ñuy desandi ndax rek ba muy leeral démb xam la ko section de recherche bu gendarmerie bu Colobane daal di woolu fii ak nag ñuy muri li nga xam ni moo di malaanu kiiraayam ca pencum ndawi réew mi waaye nag loolee du yàgg dara ñu daal di koy amal te noonee nag la ko xamlee woon ni kiy démb te sax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ni jot nañu ko procédure ngir rek ñu daal di summi yëre député bi nga xam ni moom la sol tey jii ci altine bi rek la ñu koy door te loolee nag xamle woon na ni rek ci ñi xam ni fa rek gi yàkkamti wuñu rek lu dul loolee am ba Ousmane Sonko dootul nekk député foofee ca pencum ndawi réew mi waaye moom njiital Pastef xamle na ni eh, xeex bi dina ko topp ba fu mu yem rek eh, mu daal di neex te mooy rek nekk bi nga xam ni moo mujj wala bi nga xam ni eh, mooy ñaar yi nga xam ni ñoo mujj ci xeex yi muy xeex ak waa nguur gi ba tax rek mu daal di woo ay militant wam ngir rek ñu booloo dal di koy gunge ci xeex boobule ndax tuuma li daa rëy torop ba tey si coow loolu la ñuy desandi maire bu Mermoz Sacré-Cœur di Barthélémy Diaz moo ngi fësal soutien di ndimbalam bi nga xam ni moom la indil njiital Pastef bi bii di Ousmane Sonko moom Barthélémy Dias nag ci page Facebook la fësalee ni ki nga xam ni xaritam la di frère am di naataangoom mu bokk moom wàllu ko politique bi moo ngi koy ñaanal uh, si complot bi nga xam ni moom la ñu koy def uh, ci ki nga xam ni moo di la Sainte Vierge Marie uh, daal di koy sàmm te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci wetam te it yàlla buur bi sunu borom daal di koy aar ba mu génn ci ak jàmm ci nag mu xam leen ni du Sonko Xalifa wala Karim la ñuy xeex waaye démocratie réew mi ci boppam la ñu bëgg a daal di booloo ngir dakkal rek jëfinu ñi nga xam ni nekkewuñu fi rek lu dul di lëndëmal sunu ëllëg ak ëllëgu réew mi di Sénégal ñu àddu si njàng meek njàngale mi état bu Sénégal ci lëkkaloowam ak projet d'amélioration de la qualité de l'éducation de base et de la banque mondial jël nañu rek li nga xam ni moo toll si 1,58 milliard ci kopparu CFA ngir daal di koy xeexee nag jàngoroy coronavirus bi nga xam ni jamono yi daa dugg ci yenn école yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi xam ni ñoo di daara yiy jàngale alxuraan moo ko a jóg ngir rek ñu daal di si euh, jënd ay masque gel hydroalcoolique ak yeneen i jëfandikookaay yoo xam ni rek ngir aaru ci feebar bi la ci loolu nag daara yi nee nañu lu toll si 58 millions ci kopparu CFA ñoom la ñu ciy am koppar googu nag nee nañu duñu ko jox directement ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite école yi waaye nag ci ab compte lañu koy def te établissement bu ci nekk dañuy xool xayma ndongo ya nga xam ne ñoom ñoo fay jàngee ngir ñu mën laa jox jumtukaay yi nga xam ni moom ngay yittewoo lu ñeel nag njënd mi ñeer rek jumtukaay yooyule nee nañu ci commerçant yi nga xam ni dañu leen a nangul si ñoom ñee rek la koy daal di defee loi numéro 2014 3 du 22 janvier 2014 te mu ñeer rek wàññi njëgal loyer bi daañu si rek andi ay coppite xibaar boobu nag secrétaire d'état bi gàllo wàllu ko logement euh, moo ko xamle ak hygiène publique di ki nga xam ni moo di madame Victorine Ndeye euh, moom nag moo ko xamle euh, ndax rek ci micro sunu naataango ya nga xam ni ñoo nekkee ca RFM la xamle ni ñoo ngi liggéey soppi loi 2014 boobule ndax juróomi at gannaaw bi ñu ko tëralee seetlu bi mooy amuñu ci benn ndam ndax la nga xam ni moo ko taxoon a jóg euh, moo doon rek euh, wàllu ko social euh, waaye nag loolee amu ca xeexoo mu la andi ci diggante bailleur yeeg ñi nga xam ni ñoo di locataire yi ñu woyal àdd ci xibaar bu metti boo xam ni mu nga xewee foofee ca Yoff ndax nee na ñu ñaari xale kenn ku jigéen ku am ñetti at ak frère boo xam ni ñaari at la am ñoo daal di faatu ci ab incendie foofee ca quartier Terme Nord ba daal di nelaw euh, nee nañu te nag dañu faa taaloon li nga xam ni euh, moo di benn euh, cuuraay bant ci seen biir néeg ba nga xam ni fa la ñu tëddoon seen papa nag di Boubacar Bari ak seen yaay di Ousseynatou Diallo ñoom nag nee nañu mucc nañu rek ci lakk-lakk googule waaye nag am nañu ci rekk ay quelques gaañu gaañu ñu dem ca diwaanu Kidira foofee nag benn cellule jihadiste bu bokkoon ci groupe Katiba Masina la ñu fa daal di teg loxo loolee nag daa jëm ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy xeex wàllu terrorisme fii ci réew mi ni ñoom la ñu njort ni ñoo def ñaawteef boobulee ñoom la ñu si daal di teg loxo ba noppi nag daal di leen jàllale fii ci ndakaaru ci loolu nag procureur de la république ubbi na ca rek benn information judiciaire si lu ñeel rek euh, booloo di jëf yi ñaawteef ak nag doole li nga xam ni moo di terrorisme ci réew mi kon mbokk internet yi fii laa yem ak yéen tey ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah waaye laata boobu nag di leen wéyal di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jëf suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf